salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna fépp fu TFM nekk rek euh, nit ku koy seetaan képp koo mën a doon ñu ngi lay nuyu naan la noo fanaanee mbaa yeewu nga ak jàmm yeew jàmm nag moo tax a jóg lii di yeewu leen ba tax na dama ci ànd ak équipe bu xarañ boo xam ne uh, dañuy àndandoo ñun ñëpp yeewaa àdduna bi seetaan télévision Futur Média Bijou Ndiaye nuyu naa la. fay naa la Kebs di nuyu euh, téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp di leen wax rek euh, kontaan nañu une fois de plus di leen retrouver fii ci seen émission leen comme niñ koy defee fajar gu nekk euh, fa yéene leen transmettre punch beeg énergie beeg peps bi ñu àndaale yëpp tey ci plateau bi. yooyu fay naa la nuyu bijou nuyu asmel mi nekk sama wet damay nuyu tamit ñi ak saxoo télévision Futur Média na seen émission yeewu leen dal leen ak jàmm. ñu dal ak jàmm daal di ci euh, nuyuwaale nag bàyyi ko mu nuyoonteeg askan bi ko doon xaar muy. Euh, Astou Mbène ci li wàllu information ak nag lu am solo loo xam ne tey jii tam indi na ko ni mooy defee jeudi bu nekk bu ñëwee Astou nuyu naa la. Ndeye Fatou maa ngi lay fay di nuyu Khady di nuyu Marie Christine naka noonu nuyu téléspectateurs yi nga xam ne dañuy yeewu jàkkaarloog télévision Futur Média comme ni ñu leen koy waxee rek saa su ne seen mbégte suñu yitte altine bu nekk wala boog alxames bu nekk nii rek lay demee si télévision Futurs Médias nii lay demee tey li nga euh, bu ñu seetaanee li nga xamante ne moo di yeewu leen asu leen dafa fas yéene waxtaanee lu am solo ci repère historique muy rek Tombouctou euh, ville boo xam ne ma nga fële ca Mali te nekk euh, patrimoine bu am solo fan yi am na ay rëq-rëq yoo xam ne jot na faa am tey astu dina ci indi ab leeral Marie Christine dans mon petit plat dinañu indil tey ji li nga xam ne mooy farci poulet au ñebbe euh, dans métier comme ni leen koy defalee jeudi bu nekk rek Ibou Kane dinañu waxtaanee métier bu am solo boo xam ne tey jii ku seetaan di nga gën a mën a xam lan mooy euh, huissier de justice loolu lañ leen andil waaye nag ci biir loolu am na li nga xamante ne moom moo di information information buñ ko waxee astu dina ñëw léegi ci euh, xibaar yi ci barama ñëw itam bulletin d'information en français mooy la tasse actu bi muy proposé téléspectateur télévision futur média yi jeudi bu nekk ak ni ñu koy defee euh, suba bu nekk rek euh, fii ci seen émission yeewu leen bu 6h30 jotee Mamadou Mouhamed Ndiaye dina ñëw ak yéen ci nga xam ne moom moo di revue euh, de la presse ak yeneen ak yeneen Mami Soleil amal na gëstu tamit tey ji ci wàllu chapelet Euh, nañu toog rek daal di seetaan wante laataa ñuy seetaan nag nee naa leen euh, képp koo xamante ne yeewu nga liggéey njëkk def muy sa premier réflexe mooy xam li nga xam ne moom moo xew fii ak ci bitim réew ba tax na loolu dañuy ànd ak astu ci présentation wu la Case Actu euh, ci yeewu leen astu Merci beaucoup Ndeye le président Macky Sall s'est dit du bateau pour permettre aux différentes familles de faire le deuil aussi pour les responsables des familles des victimes le renflouement du bateau leur permettra aussi de lutter contre les traumatismes parce que 1500 familles sont encore sans dépouille mortelle Golf Sud au quartier Afi à la dalle d'un bâtiment ça fait sans dégâts le seul blessé qui se trouvait dans les décombres a été été extirpé par une dizaine de sapeurs-pompiers et transféré à l'hôpital. L'USAID débloque 5 milliards de francs CFA pour investir dans sa composante communication et promotion de la santé dans le but d'appuyer le ministre de la Santé pour une amélioration de la santé des populations sénégalaises. Plus, plus de détails, écoutons Eva-Marie Colsec, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Elle est avec Fatidjan et Alun Diagne. Euh, c'est car elle permet euh, de toucher tous les programmes au niveau du ministère de la Santé, que ce soit euh, les programmes euh, pour les, contre les maladies transmissibles comme le sida, la tuberculose ou le paludisme, que pour les maladies non transmissibles, que sont par exemple les hypertensions artérielles, euh, les problèmes donc euh, de diabète ou d'insuffisance rénale. Et tout cela dans un objectif aussi qui est celui de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. C'est dire donc euh, l'importance de ce programme, qui est un programme qui vient en soutien au programme national euh, de développement sanitaire, Après la santé et la culture, avec des mesures prises par le Sénégal pour sauver les manuscrits de Tombouctou, toute pièce archéologique provenant du Mali devra faire l'objet de contrôles avant usage. C'est aussi, c'est une annonce plutôt du ministre de la Culture et du Tourisme. Autre mesure, la réhabilitation du parc Niokolokoba, des informations sorties de la cérémonie de clôture sur la préservation du patrimoine culturel et naturel. Saunera Birama et Diallo voleurs et trafiquants d'objets culturels se les tiennent pour dit. Le gouvernement du Sénégal a pris des décisions. Les manuscrits de Tombouctou ne doivent pas disparaître comme ça. Les services compétents de l'État ont pris toutes les dispositions utiles, notamment au niveau des frontières, pour saisir tout objet ancien, manuscrit, pièce archéologique, masque ou textile en provenance du Mali. Non accompagné bien sûr par une autorisation du musée national du Mali, seule instance habilitée à délivrer des autorisations d'exportation. C'est dans cette perspective que le gouvernement du Sénégal, en collaboration avec l'UNESCO, compte renforcer les capacités des professeurs d'histoire et de géographie. Et pour ces enseignants, préserver le patrimoine culturel est plus que salutaire. Le séminaire a été une occasion, n'est-ce pas, qui a permis aux participants, en tout cas, de saisir euh, toutes les questions qui sont liées à ce qu'on appelle le patrimoine naturel et le patrimoine euh, culturel, avec euh, bien entendu toutes les questions qui pèsent sur ce patrimoine. Depuis juin 2007, le parc de Nyokolonkoba est classé par l'UNESCO sur la liste des patrimoines mondiaux en péril. Le ministre de la Culture et du Tourisme a annoncé que le site sera réhabilité dans le plus bref délai. L'État du Sénégal a déjà mis au point un nouveau plan de sauvegarde et dégagé des moyens conséquents pour rétablir la situation. Tout sera donc fait pour sortir le Nyokolokoba de la liste du patrimoine en péril dans les meilleurs délais possible. Au terme de cet atelier, trois résolutions ont été adoptées par les participants. Seulement, il s'agit d'impliquer davantage les populations pour la conservation des sites qui sont le socle de l'air. Pour freiner les spéculations foncières, les autorités sénégalaises affûtent une nouvelle arme, l'équité territoriale. Autre arme, autre difficulté pour le directeurs de l'urbanisme. Le règlement définitif du problème des inondations passe par une restructuration de ces localités mal loties. Oumar Sow est avec Aminata Mbaré Sow et Mardian. Et quand on parle d'équité territoriale, c'est que les gens doivent avoir le même niveau d'accès aux fonciers au Sénégal. L'État doit renforcer les interventions en matière de restructuration et de régularisation foncière. Parce que aujourd'hui, même pour résoudre les problèmes des inondations de manière durable, seules des opérations d'aménagement peuvent nous permettre d'y arriver. Restons avec la décentralisation. Pour le ministre des collectivités locales, il faut d'abord le dialogue avant de passer à l'installation des délégations spéciales pour éviter tout malentendu avec les populations. Finalement, la montagne a d'une souris. Le crash d'avion n'a pas eu lieu hier à la cité Aline située Diatta, ex-Claudel. Ce n'était pas le grand rush, particulièrement au restaurant. La rumeur du crash a forcé beaucoup d'étudiants à quitter résidence. Des attitude le caractère irrationnel de ces déserteurs. Ils refusent de voir leur vie conditionnée par des prédictions. Reportage Daniel Diouf, Ibou Diouf.